asalaamaaleykum chers internautes de Lou'Bess TV asalaamaaleykum chers sénégalais amaat mbégte ak kontaan ñoo dalal leen fii suñu plateau xam ngeen ko tey dañuy waxtaan lu dem ci sport dañ koy dugal ci biir sport et santé mois bu buñ ci tolloo xel yi day dem ci nawetaan nga gis zone bu ne coow li bari waxtaan bi bari kan ak kan dër bi commencé tege tey nag dañu ñëw fii ci Cambérène waxtaan ak ñoom xam ngeen ko ñoom tamit depuis quelque temps nawetaan bi dafa taxawoon retour am na nit yaa ngi koy dégg ci suuf. dëggal wala du dëgg moo tax ñu daal fii ñaar ñoo xam ne yaakaar naa kenn dootu leen présenté fii ci Cambérène monsieur Moussa Meng président zone 8A ODCAV de Dakar ñu lay nuyu di la ziar di la dalal fii ci Lou'Bess TV ñu dalal fi aussi Saliou Mbaye ñëpp gën ko xam ci mbay Mbaye Chaka nekk président chargé de la communication et partenariat zone 8A Chaka ñu ngi lay nuyu dalal dalaat ci Lou'Bess TV. gis ko depuis quelque temps xam nga yenn zone yu bëri nawetaan dafa taxawoon Cambérène aussi ci la bokk euh, monsieur Mbengue euh, lan moo indi woon tey Cambérène euh, nawetaan yi taxaw. 2015 là on est en 2024 est-ce que euh, yomboon na ci waxtaan bi pour tey nawetaan bi mu dellusiwaat si zone 8A.

Euh, monsieur monsieur Chaka Mbaye euh, président chargé de la communication et partenariat zone zone 8A. Chaka xam nañ bu ñu waxee nawetaan déjà toog ngeen lu yàgg joué leen est-ce que retour bi dina dina yomb financièrement ci ci équipe yi ak war a ut ay partenaire et tout ça. xam ne mooy dynamique bi. ñu mhm. jàppale ñu jàppale zone rurale jàppale la jeunesse sportive de Cambérène. parce que tey jii mënuñu dem ci benn mairie wala ci kenn naan ko dañoo besoin dañoo bëgg dañoo soutien. Mhm. alors que moom tey jii par exemple. Euh, ba sept si si je me trompe pas tey euh, yan stratégie ngeen teg pour yeneen équipe yi xam ne jotoon nañ dem nekk ci yeneen zone yi mun a ñëwaat fii ci Cambérène. waaw effectivement boo seetloo sax si sama feewu intervention. wax naa ko. Mm-hmm. Mm-hmm. que daaw dañu am blocage kenn joué wu. maintenant équipe yi nga xam ñëw ñu fi joué daaw dañu dugal ay lettres. Mm-hmm. pour demander au DCAV mu affecté leen si beneen ASC. ok beneen zone beneen zone donc bi ñuy am résultat fekkoon na c'était un peu trop mhm. pour ñoom ñu mën a dellu si waat ñëwaat fii lu si mel ni dégg ko lu si mel ni unité 5 amul case bi par contre am na ñoo xam ni dañu affiché seen volonté. ñu mhm. ñoom wutuñu jouer zone Cambérène. ok loolu c'est à mel ni unité 5 lu mel ni case bi mel ni amul. ñoom seen souhait moo doon génn zone bi puis leur position géographique. ne s'assente pas de la zone. ok si fi lañ mës a nekk. alors lu mel ni déggoo nag moom mu ngi biir Cambérène mais dafay jouer zone bi mais lu tax mu ngi mu def lu mooy nee nañu dañu jëloon ay engagement ba pare. Mhm. pour dem zone B pour dellusiwaat fii du du yomb si ñoom. donc pour l'instant on a sept AIC constitués légalement. on a fait même les tirages. ñu am deux poules. A bi jàppoo moo fa nekk. Lingala Diamaguène. poule B bi Rakkaaju Jamono Kawsara ak Leer. Ah, donc deux poules yooyu la ñuy def championnat ba nga xamante ni dañu bëgg ren ñu cité ñu en exemple. ok biir département de Dakar. je sais que c' une c' une action buy def tâche d'huile. pour rassurer yeneen ay say yi ñëwagul. ñoo joué ku si mel ni euh, Jubo. Jubo yaakaar mu ngi fi yaakaar mu nekk am nañ ko koy dégg. dégg ñu aussi approché nañ leen mais dafa fekk ni pré wu ñu woon rek mm-hmm. certainement déwén ñu ngeen di ñaanal ñu pare ba ñëw duggaat si zone bi mais ni ñu bëgg bu ñu amee euh, compétition bu doy waar. di mm-hmm. citer un exemple day dalal xel ñëpp ñu mën a dellu si waat. ñu dellu si waaw en matière de calendrier xam nga nawetaan Dakar nu muy demee dafa am benn genre wu euh, lance benn genre cérémonie de lancement. mu koy mooy Ligue des champion bi ODCAV de Dakar di organisé. normalement initialement c' était prévu euh, le le lundi 5 mais vu dañu yokk dérogation pour démission yi donc dañ ko pousse ba le 9. et nous avons aussi une AIC. jàpp ko ba nga xamante ni mooy représenter la zone 8B 8A si biir Ligue des champions boobu donc ñu ngi koy ñaanal mu am fa ndam loolu aussi c' est un c' est un signal fort parce que ça montre que zone bi aussi légalement moom ak zone yi nekk ODCAV de Dakar yëpp ñoo yem donc lu zone B am ñun am nañ ko Ligue des champions boobu jàppoo mooñ si siy représenté donc suñu defee premier match yi ODCAV dafay lancer activité de vacances yi su ko lancé libre à chaque jeune de commencer sa programmation. Maintenant, la programmation va se faire de manière conjointe avec nos zones, euh, avec les zones voisines, su mel ni 8B ak 8C. Comme parcelle bi foofu la ñuy jouer on va faire une réunion pour defar un calendrier selon la disponibilité aussi du, du stade. Voilà. Mais c'est bientôt, mais le lancement c'est prévu le août avec Diapo buy jouer contre Dego de Maris. occasion la ñuy woowaa Cambérène yëpp ñu mobiliser wu autour de Diapo foofu la ODCAV di lancer les activités de Dakar ñu mën a jublu nag ci suñu programmation certainement vers avant ñuy génn mois d'août bi war nañ jouer les premiers matchs. mais mais est-ce que après du du dem dugg ba ci bi ci année scolaire bi ndax xam nañu booy yi ak nawetaan euh, yaakaar na ñoom ñooy ànd. waaye surtout ça parce que nawetaan boo xoolee ñi koy def ñëpp c'est des. apprenants du de l'élémentaire du moyen quoi parfois nga gis si bor élève CM2 bu am talent bu joué cadet wala nga gis ku nekk collège kuy joué cadet wala kuy joué senior donc ñun suñu option c'est quand même de restituer des valeurs c'est vrai que la zone incarne la renaissance mais aussi surtout les plans bëgguñu def lu yées Cambérène ku ko mës a xam-xam ni activité de vacances vacances sera di am au temps su déborder rek c'est parce que amuñu woon terrain dañ doon dem Demba Diop di ran mais bi ñuy joué suñu terrain activité de vacances da doon teel a jeex vu que nag am nañ terrain bu ñu jege et puis équipe bi bëriwuñu suñu ambition suñu objectif mooy ñu jeexal ci vacances yi. lu tax ñu war a jeexal ci vacances yi c' est de de de d' anticiper peut être sur une question. mooy que nous avons un programme bi nga xamante ni dafay allier sport et citoyenneté alors mënuñu wax citoyenneté ba pare di privé xale bi muy jàngi mënuñu wax citoyenneté ba pare. di def en pleine année scolaire ñuy ñuy def ay activités yoo xam ça attire l'attention de même ñi joué wul sax donc lu ñu bëgg mois de septembre octobre au plus tard ñu clôturer suñu suñu championnat national populaire ak toute activité connexe bu ñuy def si biir vacances yi suñu mbébét daal lool la incha allah. Chaka Mbaye de la communication et partenariat Chaka bu ñu waxee nawetaan ñu bëri xalaat violence. tey yow yor nga communication bi tey ban message ngay lancé ñi nga xam ne ñooy habitants Cambérène ak ñeneen ñi nga xam ne tamit aussi bëgg nañ di ñëw di seetaan seetaan si nawetaanu zone Cambérène merci beaucoup Amadou encore une fois donc je pense que violence moom souvent bu ñu nee nawetaan da xel yëpp day dem ci violence mais Cambérène yàlla dimbali nañu on vit en communauté et tout le monde se connaisse et puis non seulement. jeunesse bi benn lañu amuñu différence et ñëpp tey aussi dañu nekk autour du sport bëgg sport di fréquenter du jouer ensemble donc nawetaan bu ñëwaatee euh, équipe bi fi nekk ñoom ñëpp dañoo prêter serment devant devant le président devant tout le monde pour diir que cette année-ci non violence ça veut dire xalaatuñu sax def violence parce que dañu bëgg a nekk euh, benn zone boo xamante ni de référence UNITA dafa war a nekk référence comme ni ko président waxee cette année parce que au delà des des au delà du football en fait l' aspect euh, citoyenneté bi dañ ko bëgg a développer buñ ko du question dañ ko bëgg a développer par de wax mais par des actions concrètes aller dans les dans les dans les dans les ASC waxtaan ak ñoom par rapport ak lan mooy utilité bu nawetaan nan la ñu war a comporté wu naka la ñu war a nekk autour de de nos de nos équipes et di développer aussi tamit. ay stratégie euh, ça veut dire euh, euh, du quartier yi nga xam ne yi ñëw ci quartier bi woo toute la population wax leen ni tey yéen a aye qu'est-ce qu'on peut faire avec vous yéen message ngeen war a joxe pour l'équipe yan message ngeen war a joxe pour les supporters parce que loolu noonu day permettre aussi au moins les supporters xam ne équipe bi ñoom waruñu ko yàqal dañ ko war a accompagner. et ku xam Cambérène xam ne aussi tamit du dëkku violence am dëkk la boo xamante ni vraiment kaf la ñu xam foo agréé ak aussi tamit situation bi ñu demee aussi tamit cette année ci je pense très bien que ni dañu citer aussi tamit en référence par rapport ak toutes euh, yi nga xam te noo nekk à Dakar donc incha allah non violence mooy nekk euh, li nga xam ne mooy le thème euh, central de zone 8A cette président ñu gis nii comme ni nga ko waxee 2015 2024 nawetaan bi taxawoon na tey est-ce que du am amul ci si suuf ñoo xam ne jàpp nañu peut-être euh, ODCAV est-ce que reconnaître na ndax lii dëgg la. c'est une très bonne question boo xoolee sax parfois benn moment nekkoon na de ba nit ñi naan dina am du am mais occasion la boo ma may ma wax ni képp kuy wax ni du am yóbboo nga pare. participer allah ndax zone bi ren même bu joue deux équipes day jouer parce que zone bi am trente équipes ba am vingt équipes boo am dix équipes ñoom ñaar liy wane ni ODCAV reconnaître na leen mooy lettre d'homologation on a notre lettre d'homologation déjà beneen preuve aussi ODCAV de Dakar ren dafa def tirage groupé pour toutes ces zones mu ko defee amitié côté cosaan centre perfectionnement bu nekk foofu zone bi daal foofu la defee tirage am donc ASC yi si bokk yëpp son légalement constitués ku si nekk jot nga sa lettre de reconnaissance am nga accès si plateforme bi tey jii Saka fi mu toog leer gi. Mm-hmm. ASC bu bees sa musul joué nawetaan bu duggee léegi si plateforme bi on va mettre bi teg fii day gis turam mm-hmm. nu ASC bu fi am cent ans di gisee turam donc ñun damay dégg sax parfois nit ñu ne non zone bi tournoi lay joué mais lan mooy tournoi. même championnat national populaire tournoi la Ligue des champions tournoi mooy quand il y une mise des équipes di xëccoo une mise c'est un tournoi donc ren lu ñuy joué nawetaan la comme yeneen zone yu du joué mais on a deux poules et di dalal xelu ñëpp di wax ne li zone yi nekk ci côté bi wala zone yi nekk Paris wala zone yi nekk fépp du joué moom la Cambérène di joué avec deux poules macha allah donc di profiter si tu le permets rebondir un si ni ko mm, Chaka waxee léegi comme chargé comme am na stratégie yu mu yu ñuy yu muy développé moom des stratégies mobiles avancé yi nga xamante ni xam nga si beneen côté bi sax moom comme yow comme ñun dañuy liggéey si yeneen liggéey ku si nekk jàng na science comportementale jàng nañ ni nit ki pour nga mën ko jëlee si comportement A yóbbu ko si comportement B il faut li koy jëlee fii di ko yóbbu fee mu nangu ko d'abord on va chercher l'adhésion pour lutter contre la violence parce que dañuy wax chaque jour non violence te comme ni mu ko waxee suñu maître moo ren c'est non violence mais naka la ñuy amee cette adhésion commune communautaire on va se déplacer vers les communautés ñoom ñoo ñuy proposer naka la ñuy def ba violence du fi am pour dire que cette année c'est une année d'écoute c'est une année d'exploration et c'est une année d'expérimentation on va prendre de cette année pour que année yi di ñëw ñu xool naka la ñuy gën a mën a tegee stratégie yu gën a yu gën a payante comme li ma animé animé chaka animé yeneen membre comité directeur yi appel la pour ñu wax ko waa Cambérène yëpp mu animé leen ren li ñu bëgg mooy ODCAV de Dakar suy cité zone yi exemple yi mu boole si Cambérène donc man jiite si loolu sama mission la ak mission dama bëgg nag Cambérène waaye yëpp porte mission boobu ba fu ñu mënti dem ñun dox doxinu exemplaire fu ñu mënti jouer ñu wane ni ñun la Cambérène c'est d'abord pour ñu citer ñu mais beneen bi aussi pour tontu parce que quoi qu'on puisse dire du fàtte xaju fi doon nañu wax Cambérène moom non du ñëw suñu zone parce que dañu bëri coow dañu lii dañu lii c'est une autre manière de montrer que ni on faire des activités de vacances si jàmm si salaam ak si añam yu anam yu doy waar donc c'est une manière aussi de lancer un message à tous les Cambérénois loolu animé ñu ñun comité directeur bi du mën a sotti fekk Cambérène waa yëpp porté wuñ ko def ko seen xol. merci beaucoup. côté financière gis nañu nawetaan bi toog nañu quelque temps tey équipe yi président ASC yi tout ça dinañ am ay difficulté tey ban message ngay lancé ñi xam ne autorités yi nekk fii ci Cambérène. waaw effectivement merci beaucoup pour cette question d' abord ça me permet ma remercier ku si mel ni euh, monsieur le maire ku si mel ni Moussa aussi. parce que bi ñu demee ODCAV de Dakar di def suñu installation officielle dafa def le déplacement ancien maire de Dakar ancien maire des parcelles dafa def déplacement ñëw jëlee engagement ni il va même accompagner la zone yamul si foofu bi mu fa jógee il m'a contacté pour ñu jox ko des informations pour chaque AIC c'est fait on attend aussi son retour et on sait que dina def action donc occasion la pour remercier ko et puis ko wax ko ñu ngi koy tàllal loxo di ka xaar si mu jàppale ñu comme ni mu ko waxee mais comme chaque année ni mu ko waxee suñu première suñu objectif sax même suñu politique suñu programme dafa am dimension bu am solo bu chaque année yor du partenariat. pourquoi partenariat parce que souvent dañuy wax ni soo waxee partenariat jox ma jox ma la mais non ñun nous sommes une structure ba nga xamante ni on va porter quelque chose à quelqu'un quelqu'un aussi daf ñuy apporter quelque chose donc loolu c'est une politique de partenariat. bu ñu mettre sur place mais le premier partenaire c'est la commune c'est monsieur le bi ñu installé officiellement moom lañ njëkk dem seeti mais aussi bi ñu ko seetee dalal na suñu xel wax nañu ni dina def lu mu mën ak lu mu mënul ba financièrement mu jàppale les ASC donc occasion la ñu tàllalaat ko loxo wax ko ni fi ñu toll nii soxla nañu mu teg loxo ASC yi mu dimbali leen pour relancer ASC yi financièrement parce que nawetaan comme ni ko Cheikha waxee au début vision yi day changé tey li nekk vision Lou'Bess bi cinq ans si kanam mën na ko bañ a nekk alors le monde évolue bu njëkk ba dama doon am xaalis dëkk si koñ maay président bi gis nañ fi président yi nga xam ne économiquement parlant ñoo gën a tuuti revenu si koñ bi tam ñooy président yi donc lu ñu soxla léegi du lu kenn nit di def mais lu ñëpp di def soo xoolee sax si développement loolu mooy durabilité. Mm-hmm. man kese su may def bu yàggee su ma téyee sama loxo mbir mi dee. Mm-hmm. mais bu ñëpp di def du mës a dee day ne di dund. donc li ñu soxla mooy koñ yi aussi ñu teg ñu mettre en place des politiques politiques financières je salue parfois ma taquine gars yi je cite un exemple leer gi gis naa démb ñu ngi def euh, ay initiative yu am solo genre pancarte la ñu koy taf. mais loolu c' est une manière d' animer le quartier mais aussi de de récolter derrière c' est activité en tout cas génératrice de revenu je vois quelque part Diamaguène euh, gis naa ñuy defar maillot peut-être jaayaat ko c'est c' est des c' est des politiques yi nga xamante ni dafay dugal xaalis donc ASC aussi appel la bu may def auprès de ces ASC ñuy xalaat si yu mel noonu mais li jiitu si financièrement mooy que suñu autorités yi fi nekk kilifa yi bonne volonté yi nekk Cambérène ñu ngi leen di woo si ñu dugal seen loxo si kii bi je profite pour woo suñu internationaux yu ñu am. Mm-hmm. am nañ ko si mel ni Ilimane Ndiaye je sais que sport soxal na ko mm-hmm. chaque moment mu ngi siy loxoom dañ woo aussi su mel ni Gana Gueye mi nga xamante ni identité Cambérène lay incarné sport Cambérène ñor ko trop ñu ngi koy woo ku si mel ni Birame yàgg ñoo jàppale. donc ku lim di nga juum mais bëri na ñi nga xamante ne ñu ngi si dëkk bi sport kase ñor leen ñu ngi leen di woo ginnaaw bi ñu woowee suñu. partenaire officiel mooy monsieur le maire de Cambérène ma xam ni moom moom bu si dugalul loxoom dara lu dem voilà merci. mbay monsieur Mbengue la ñuy jaglewoon ci temps jeex na te yu bàyyi rek ngeen tàggatoo. voilà. baa ma njëkk tàggoo Cheka. <laughs> d' accord merci beaucoup si si si invitation bi. di leen euh, remercier encore une fois. di wax ne lii aussi euh, bëgguñu mu yem tey parce que dañu am euh, ay phase phase bu njëkk bi mooy premier journée yi deuxième journée troisième journée bëgg nañ journée bu jeex suñu munee am ak yéen plateau ñu def débrief bi donc loolu si stratégie yi Saka di di développer ci la bokk di di aussi remercier téléspectateurs di remercier Cambérène ñëpp di leen woo encore une fois di leen wax ni nawetaanu ren nawetaanu ñëpp la parfois sax damay tooñ ku si mel ni taala talsmen mm-hmm. di ko wax ne dañuy fàtte sax ay si ñu bokk ñun ñëpp mm-hmm. oh, voilà macha allah donc ñun ñëpp lu ñuy euh, lu ñuy lu ñuy incarné mooy la zone wala mooy Cambérène mooy nawetaanu Cambérène sportu Cambérène parce que dañ si amee exemple lu mel ni AS Cambérène maa ngi nuyu le président mm-hmm. di ko remercier si taxawaayam mm-hmm. aussi mm-hmm. di ko woo aussi si mu jàpp si zone bi bu baax a baax le président de AS Cambérène Cheikh Tidiane Sow dañuy gis ne ak AS Cambérène bis Cambérène yëpp booloo autour de moom dafa def ay résultats yu doy waar football Sénégal foo dem fi mu toll ñu ngi koy waxtaanee et je sais possible pour la zone vitale su Cambérène yëpp mobilisé au derrière ñoom dañ leen di citer en exemple donc di remercier membre comité directeur yëpp di remercier tous les présidents d'ASC di joxe daye incha allah balay yàgg di lancer un appel que ñu mobiliser autour de Diapo pour seen match la 9 bi merci beaucoup. Mbaye kàddu gu mujj. waaw merci beaucoup Amadou merci beaucoup président ci développement bi nga xam ne bu am solo boo xam moom la ñu def et puis loolu lépp nekk autour de de la zone 8A. pour ko mu mën a progresser davantage bon ni ñu ko waxee rek on a des partenaires ah yoo xamante ni dañ leen war en tant que chargé de partenariat donc ñu ngi woo l' international Elimane Ndiaye ñu ngi koy woo euh, mu ñëw jàppale li nga xam ne le sport à Cambérène parce que c' est très important parce que Elimane c' le fils de notre de la communauté y compris Gana Gueye ah l'international ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo pour ñu apporter leur contribution à la zone 8A de Cambérène bi nga xam ne cette année ci on veut faire des exploits yu extraordinaires dans ñu ngi woo aussi Soyibu Télécom Soyibu Télécom c'est ku ne xam na ko moom aussi suñu koñ la dëkk ñu ngi koy woo mu ñëw jàppale zone 8A de Cambérène ñëw sponsoriser la zone mën na ko te te te xam naa ne dina ko def incha allahu rabbi ñu ngi ko ci woo et di woo aussi tamit comme ni nga ko waxee le président de l'AS Cambérène aussi Cheikh Sow ñu ngi koy woo vraiment moom aussi tamit déjà li tax mu am solo sax moom mu ñëw apporter sa contribution moom mooy que après retombées yëpp en termes de joueurs AS Cambérène lay demaat. donc du on est en train de préparer benn benn crème boo xamante ni voilà pour AS Cambérène déwén. mu mën a am multiple choix par rapport ak ces joueurs là yi nga xamante ni mooy ñoo war a défendre flambeau AS euh, Cambérène au niveau de la zone euh, au niveau euh, de la Ligue 2 Ligue 2 donc loolu aussi tamit beneen bi monsieur le maire encore une fois donc moom vraiment ku xam-xam ne sportif la vraiment jàppale na ASC Cambérène ba ASC tollu fii ñu ngi koy woo zone 8A aussi mu ñoo apporter li nga xamante ni moom mooy son soutien à ce que cette année si ñu mën a réussir li nga xamante ni moom mooy challenge bi donc sans plus tarder aussi ma remercier ASC Leer gi ah parce que vraiment euh, sama ASC la ren aussi tamit vraiment objectif yi du ñëw participer dema ah. objectif mooy ñëw gañe coupe bi dem te xam nañ ni ñoom ñëpp loolu la ñu gëma ah. mm-hmm. gëmuñu leneen loolu la ñu gëm les moyens sont là lépp a ngi fii joueurs yaa ngi fii objectif yi nañ ñëw gagné zone bi daa dem mu nekk nag benn loo xamante ni dans l'histoire du football à Cambérène ñu koy cité ASC Lergui de Cambérène donc ñu leen remercier bu baax di leen gërëm xam naa ne daal maa ngi supporté beneen équipe bu dul ASC Lergui di xool de ki nga xam ne derby bi nga xam ne moo gën a neex entre ASC Lergui mu dem supporté ñu ñooñu quoi parce il faut ma jàkkaarloog Chaka xam nga non kon damay dem jamono ak Rakaju yéen jamono Rakaju ma aussi c'est à signaler euh, de poule boo xoolee pulaa bi jàppoo Ningala jàmm gan. ñetti ASC yu bokk benn koñ la ay dér bi kese la. dugg ci biir ASC yi tasaaroo équipe bi tasaaroo ñuy dugg fii ñu dugg fële ñu ànd ak ñoom ba stade xool la dama fa am bu jeexee tam ñu toppal leen xool ak nawetaan dafa neex quoi dafa neex di di jaajëfal waa waa waa zone UNA bu Dakar xam ngeen ko ASC daal de Rebeuss suñu fief fa moom. xam daal namb nañ nawetaan ñun tamit suñu côté ah gars yi nañ ci jàpp président Papis Niang ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax président bu mat président ngeen xool li ñuy jàppee rek xam daal mu nawetaan ñun ñamal si tuuti nawetaan dellu si tey boo ne xam wax kusum boo ne kusum wax ngaraaf jamono xam daal c'était des derby yoo xam ne ne doo nelaw man dama doon toog sax daal ku su war a dajee du ma mën dugg Medina ragal ñu xàmmee la wala ñu dóor la affaire yooyu et loolu moo nekkoon engouement nawetaan te dañ ko namm fi mu vraiment 14 heures nga sangu añ ba suur sangu ba set tir yoonu stade asikoy accompagner la ça fait plaisir di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñëpp tey xoolal Lou'Bess TV mu ngi ci biir nawetaan bi ren fu ne la ñuy dugg incha allah rabbi wane ko dem si zone waxtaan ak équipe yi waxtaan ak jeunes nga xam ne ne vraiment ñu ngi ci vacances topp ci nawetaan yi xool mbir yi ni muy demee ko ëllëg ñu mën a yokk lu bari bari ci nawetaan yi ñu leen jaajëfal bu baax di jaajëfal sama ñaari leen dox dig daje bientôt ci beneen numéro incha allah rabbi